yaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen fii ci Touba Mbacké ñu fas yéene ànd ak yéen ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor gi xibaar yi ñu doore kook waa mu daayira Muxaddamatul Xidma di daayira bi nga xam ne ñoo nekk ci jumaay Touba ji te ñu yor li nga xam ne moom moo di liggéey bi ñoom nag euh, ñuy def lu am solo moo di mboolem taalibe yi nga xamante ni waxtu ndogu da leen di fekk ci lu jege jumaa ji dañu leen waajal ay ndog yu am solo yoo xamante nii lépp la ñuy waajal ngir képp koo xamante ne waroon na bu ñëwee mu mën a ndogu ci ay ndogu yu mucc ayib loolee nag ñu ci def ay millions yu takkoo takku ci diiru weeru koor gi lépp rek ngir jaamoo ko yàlla waaye jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit yi ci weeru koor gi ñu ànd teewlu kenn ci ñoom muy euh, Serigne euh, Abdoul Ahad Bousso Matar moom mooy secretaire général daayira Muxaddamatul Xidma mu indi ay leeral lu jëm ci ndog yooyu ñuy baaxee mbokk taalibe yi. waaye nag barab bi nga xam ne mooy néegu yàlla bi bopp Serigne Touba yi war nañ ko fiy dundal dundalin woo xamante ne bi ndax dëkk bi dëkkub dajawukaay la fu ne la ay mbooloo di jóge di fi ñëw. am na it way néew doole yoo xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi di liggéey war delluwaat ci añeer yi te bu waxtu dog jotee dana leen fekk ci dëkk bi te duñu am fu ñu doge ñooñu ñu war leen a faggul ay ndog yoo xam ne dañ koy waajal fii ba mu mel na mu war a mel bu waxtu woo jotee ko mu fekk nga mën a dog ci loolu la Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu joxe woon ndigal li euh, ci teewaayu Serigne Cheikh Oumy Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Fadil kër ba ñuy dem ci moom moom la ñu àndal euh, Serigne bi joxe ndigal li joxe woon leer naññ muy atum 2005 ci la ñu ko tàmbali bañ koy tàmbali itam tëbuñ tëb rek def ko mu mel nii mu mel at mu njëkk ma dañ ko doon def par ajjuma ma ca topp ñu di ko def ñaari yoon par semaine ma ca topp ñu di ko ñaari yoon par semaine waaye di def yu ndaw ci biir jumaa ji ba ca toppaat nag di ñeenteel ba ci la ñu ko génnee di ko def bis bu set nii ñu koy defee mu tolloog xaw na 2009 bis bu set nii ñu koy defee su ñëwee ni ngeen ko xamee te di ko ni gisee at moo jot danañu waajal ay ndogu ñu njëkk a waajal berndeel roox yi ci wàllu xam-xam te mooy taxawal ay waxtaan diine yoo xam ne bu ñu jullee takkusaan ba ci kanam tuuti cinq heures demi lañ koy tàmbali ba dog des lu toll ci ñaar fukki nit ñu yemale ko fa nit ñu jóg dox ndànk ci seen teew bekkan dugg ci barab bi ñuy war a dogee mën a toog toogaay bu jekk lu ñuy dog di jot nga xam ne daanaka bu ñuy toog bay noppi rek ci lay dog di ñu tegal leen lañ leen war a tegal lépp ci wàllu dog ñu mën caa Euh, mu doon loo xam ne itam ñi koy def jubluwuñ ci lenn lu weesu ja sàkku tiyaaba ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne ku dogal ku woor danga nga ci am yool bu toll ne yoolu ko ko wooroon te du wàññi ci yoolu ko wooroon dara. mu nekkoon euh, Serigne Abdou Lahat Bousso Matar secrétaire général bu daayira Muxaddamatul Xidma ba léegi mbokk yi ci euh, xibaar yi fii ci résidence Xaadim Rasoul ni nga xam ne noonu la fi mbokki taalibe yi di nekkee ak gan ñi. Euh, saa su nekk bu guddi jotee am na fi daayira boo xamante ni ñoom ñoo koy nettoyé ba mu set muy daayira Abrar nekk daayira boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir moo leen jox tur woowu ñoom nag seen mission moo di setal résidence Khadimou Rassoul ginnaaw bu taalibe yi ndogoo ba noppi lépp loo xam ne batiment la fa ak li nga xam ne mooy jumtukaay ñu utiliser loolu lépp euh, ñu daal di koy seetal am na waxtaan woo xam ne seq nañ kook seen euh, jëwriñ di Serigne Mamadou Mbaye ñu ànd teewlu kuréel la goo xam ne dañoo ànd jaayante ngir bokk ci. ñiy seetal dëkk bi rawatina nag kër sëñ Touba ak li ko wër daayira bi mi nga sosoo woon ci weerukooru kooru daaw ginnaaw yàlla ak yonent sëriñ bi mi ngi sosoo ci xalaatu Hizbut Tarqiyyah sëriñ atu Diagne ak ñi ma àndal bañ ma ko yëgalee ma def ci ay jéego yàlla def mbooloo mi wuy si ma bi ñu wuysee ci weeru kooru daaw yi ñu tàmbali ko woo ci ay association woo ci ay daayira koñ ba ma dëkkoon woo ci ay benn benn yoo xam ne sax bokku ñu daayira ñu ànd ñëpp di ñëw di liggéey bi weer jeexe kër gi waa kër gi rafetlu ko sëñ bi rafetlu ko ñu jox nu dibéer ji ni nu dee ko wéele dibéer ju ne ñuy ànd ñëw ci kër sëriñ bi biir ak biti bâtiment yi juróom-ñetti bâtiment yi ni ci biir kër gi yëpp dañu koy nettoyer dañu koy bale lu fi mat fóoti dañ ko yóbbu di ko fóot lu mat a raxas it dañ koy raxas noonu lañu doon def dimees jume bu weeru koy del si waateet ñu delluwaat fa ñu nekkoon euh, dañuy def bu ñu dogoo rek dañuy fexe ba dogoo si fi bu ñu dogoo rek am nañu benn euh, station benn euh, barab boo xam ni fa la teg bagage yi bàyyi fa ñoo xam ni ñoo koy saytu ñu def si suñu biir lu mat 4 5 équipes dafa am équipe boo xam ni ay xale yu jigéen lañ ñoom ñoo féete fobere toilette yi ak fobere karo euh, yi ak trottoir yeeg yooyu am beneen ñoo xam ni ay mag lañu ñu def ko ñaari deux sous benn sous bi ñoom ñooy def raxas dañu féete ba di raxas beneen sous-groupe bi ñooy di bale am nag beneen kuréel boo xam ne ay xale góor la composé wu ñooy dem fan ndogale amee woon ñu wër fu ñu doge fu ndog pare xam foofa ñaari xeeti bagage yoo xam ne am nga bagage yoo xam dañ koy sànni yooyu dafa xale yoo xam ne ñoo koy for def ko ci mbuus dem sànni ci poubelle ba am na ci yoo xam ne ay ay koppal ak kaas ak i palaat yoo xam ni dañ koy utiliser waat yooyu ay xale ñoo koy jël yóbbu ca raxasukaay ba ñu raxas ko bu ñu rangele waat ko bu ñu noppee euh, vérifier ba nga xam ne bâtiment yi yëpp ak cour bi yëpp set na ñu soog a diggante daal xam naa ne entre huit heures dix heures huit heures dix heures daal yàlla mën naa def lépp dana fi sotti incha allah. mu nekkoon euh, daayira Abraar seen njiit di Mamadou Mbaye euh, doon ñëwaat rek ci li nga xam ne. moom lañ leen dénk ci résidence Xaadimu Rasuul di di ko seetal saa ne rawatina ci biir weeru koor gi mbokk yi dañuy dem ba njaareem ku ne njaareem ci weeru koor ne fulku mu nekk euh, jotaay bu am solo boo xam ne Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Bassirou la ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke jox ndigal li mu koy teewee ñaari at yi di ko fa nekkal ànd kook Serigne Isaaxa ak mboolem kilifa yi loole nag nekk jotaay bu am solo boo xam ne Serigne Mountakha Gueye yàgg na koy jàngalu ëpp ñeent fukki at Euh, keroog nag am na waxtaan woo xam ne seq nañ koog moom ginnaaw bu mu euh, amalee njàngum fulku mi ba noppi ci li nga xam ne moom moo di yëg-yëgam waaye taarixu xasida yi nga xam ne ñoo ngi koy jàng ci njaareem ci diirub weeru koor gi ñu ànd teewlu Serigne Mountakha Gueye di kenn ci ñi nga xam ne ñooy jàng fulku bu njaareem bi ci biir weeru gi. ndax naa wax ne lii. suñu lii. Mm. mi ngi bëgg a yàgg mhm, mhm. daana wax ne su ma sañoon ñëpp di ko dégg mhm. ah booba kenn xalaatul lii déedéet ah, waaye bëgg gu waaju baax tey loolu mu ko bëggee woon am na wax naa ne la daaw waa Japon war nañoo ni ma heure bi ngeen di jeexal fii fulk bi ci njaarim te la ñuy xëdd ñoom nga di kon addina bépp <laughs> ndax kon yéen itam yéen ñi yaatal ak di siiwal ne war ni géej bi kenn jiituwu leen ci ndax ku ko dégg rek am ngeen ci tiyaaba te yéen bu leen rek du dem kon yéen ko jàll loolu tamit dama koy wax nga xam ne liggéey bu rëy rëy la maanaam mboolem média yi xam ne benn liggéey ëppul bii ndax ku ko dégg ku ne tuyaa bu ñu mu ci am ñi ku jot yéen am ngeen jëf loolu liggéey bu rëy rëy la bu yaatu yaatu la yàlla yàlla kattanal leen te defal leen ci ndam kenn ku ne fa mu ne yàlla fa ko ci ndam lu rëy te barkeel liggéeyam ah moom ni nga ko xamee rek wax nañu ko waxaat ko jotaay bi Serigne Touba la Cheikh Modou Bachir moo xalaatoon lii booba kenn xalaatee ko nii di ko defal seriñ bi ah, di ko liggéeyalee téere bi moom moo ko dajale téere bi bi ngay moo moo moom la ko dajale woon boppam noonu am yu mu ci dindi am yu mu ci defaat ñu nag ba mille neuf cent def naa su fekkee jiw ma soixante quinze te Cheikh mool bi ñu njëkk a jàng fulk boobu def ko ñu ko daa bëgg mu taran xam naa taran taran ñu bari dañu ko xam dañu ko dégg waaw taran mooy booñ fee ndab bañuwaar bu mu fees ba fees nga jël ndabul susi nag teg ko teg ko moom teg ko ca kaw loolay taran ci wolof mu ne ko maam daal bëgg daal njàmbaas ko ci li ma ci ñaanal eh, moo tax ñu boole ci bii eh, waaye muy liggéey boo xam ne waxuma sax jëmmi téere bi ak ki def téere bi ak ki ko digle waaye bërëb bi ñu koy defee rek lu mat a bàyyi xel la من شكره بلا كفران وكامل بالخير في mu nekkoon euh, kàddu euh, Serigne Mountakha Gueye ca njaareem ci fulk bi nga xam ne ñu ngi ko fay amal at mu jot euh, mbokk yi ñu del si fii nii ci Touba Mbacké ci résidence Khadim Rassoul fi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké ba fi lay dundale weer koor gi ànd kook mboolem taalibe yi ak kuréelu waa daara Hizbut Tarqiyyah yi tey ji nag niki àllarba ak talaata ji ñi nga xam ne moom lañ génn niki démb fi nga xam ne ci résidence Xaadimu Rasuul sëriñ bi du fi dalal ziar yi du fi ñëw sax waaye ginnaaw takusaan ci lay ñëw li nga xam ne nag moo ko fi indi moo di njàng mi rek moo tax biñ julee takusaan rek ci la sëriñ bi ak si ànd koog ñi nga xam ne ñoom ñoo di mboolem kilifa yi ñëw ci biir salle bi nga xam ne fi la ñu amalee njàng mi teewlu kuréel gi nga xam ne tey jii moom moo doon jàng muy kuréel Hizbut Tarqiyyah bu Daara Kaolack mbokk yi kuréel googu sax ci la ñuy tàggoo ak yéen ci xibaaru koor gi tey jii santaat leen gërëm leen ci teewlu gi dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar yoo xam ne dana bàyyeekoo fii ci Touba Mbacké kon ñu bàyyi leen ak kuréel 1 bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Kaolack ci njàng moo am solo mi nga xam ne jàng nañ ko fii nii ci résidence Khadim Rasoul harakatun lasil wujud wal khidam har wa jabal lana بركة الذي الوجود والقدم قد وجبا متكلم وجاد من خصوم لم ينو قد أدم ولا أنوس ولا فناء للذي منه الحديث رب الورى ليس له تماثل ولا ابتخار بل له من ماثل حمدي لباب لم يلي يا لو ولي ملكمو